macha allah am na solo yaay booy. Mm. mais tamit euh, bëggoon naa nga wax ma xam nañ ne euh, woy dafa garaaw surtout woy làmb. Euh, est-ce que mosoo dugg si làmb sentir ne tey daal yëgoo sa voix. waaw est que mos na laa dal. waaw mos na ma dal nag waaye nag. Ah, yëkkatil micro bi tuuti waaw mos na dal. Mhm. mais nag nekkuloon mystique. Mm. mos na ma dal ci làmb. Mhm. mais nekkuloon mystique parce que waaw. Mhm. parce que nag. nee nañ olof Njaay nu mu koy waxee mais séeréer da koy naan xoox mm, bor ne daa saax. bopp ndaw bopp neen du wër géew du wër du nit ku ne am na loo xam ne yàlla may na la ko. Mm. ci li ngay liggéey. Mm-hmm. ak mbem da ngay jël li nit am. Mm. ak luñ la conseil ak luñ la jox nga boole li nga am nga daal di ko jël. mais nit koo gis am na lu ko yàlla jël sama baat dee na. Mm-hmm. ci làmb. Mm-hmm. gaa yëpp ñii di daw ñii di jël ay pot ndeysaan maa ngi koy remercier bu baax muy di jëndof dëkk Fimela. ñëw naa làmb marlooc fekk boobu dama teglante ñeenti làmb yoo xam ne dama koy woy làmb yi di guddee lool may woy làmb kumbal di woy làmb bi ba bi ñuy woy final bi ñi ñaa ngi salaatu ci jumaa ji ñu ne nañ may ñiy julli ba ñu julli ba salaatu ba pare ñu yëg ñu jeexal final bi ma jeex ñu daal di pare salaatu ba pare ma daal di jeexal làmb ji rek continuer dugg oto ñëw mar nelaw ma te man gémmantu day rey sama baat ma daal di ñëw si mar bi ma ñëwee marit ki ñu tuddee drapeau bi ñëw ne mukk damay ñëw yendu këram di ko animel ndax loolu la bëgg mm-hmm. yëkkati xaalis bu bari may ma ne ma mm-hmm. ñëwal yendu ak man mm-hmm. ma daal di jóg dem yendu këram di animé ba ay 5 heures ma daal di dem bu ga nelaw diggante 5 heures 7 heures 8 heures ma war a dem ci làmb ji diggante baat bi jàppante na ak nelaw ak nelaw na ak nelaw ma baat bi dee ma di dem xale yi di woy di woy ba ma sama yéeg heure yi yéeg jot ma daal di jóg di jël micro bi pour woy ma yëkkati woy bi bañ ma yëkkatiwaat woy bi bañ saan di daal di daw jël benn kaas daal di ci <laughs> ne ma taril Fatiha. Mhm. <laughs> ma ree mhm. mu ne ma waay yaa ndey taril Fatiha waaye nga naan ndox mi. Mhm. ma daa di ree ma daal di jël kaas bi ndox mi rek daal di tari naan. am keneen ku jóge ca bunt ba daw si encore. daal di tibb suuf xaw ma def def nag ma ne leen nee leen nii <laughs> ndax man nag. wax boobu boobu yow xam nga li la arrivé sama bopp. ndax man nag yàlla dafa dogal nag. taaliba Cheikh laa. taaliba Cheikh laa. te dama bëgg xalifa Babacar ci sama xol. lu ci mystique yal na ma yàlla baal baalati ma sonalu ma uh-huh. am na ñuy wax naan day faatu bu luy woy day jat day def nangam man taalibe xalifa Babacar Sy laa uh-huh. te bëgg ko te uh-huh. nekk jullit nag te gëm li may def bëgg sama yaay bëgg sama papa balaa may génn ci buntu kër gi sama yaay ñaanal ma sama papa dañ ko woon ne ko aadama mu ne en ah, mu ne ko ndax yow saa yoo toogee ci rajo bi ndey faatu rek ngay wax mu ne juruma ko moom rek am naa équipe ab remplaçant waaye dafa gaaw ma gaaw dama koy bugg di ñaanal fu ma munti toll te balaa muy tàkk sax ma dëddu àddina te loolu day ñëw ci man mm-hmm. ma nekk waaw ma xam ne comme man jullit laa mm-hmm. du ma wax nit ne def dara def ma jàpp du mystique mm-hmm. ma daa di rey rek na xale yi bàyyi leen rek bi ma bàyyee bi ma yuuxuwaate beneen troisième bi rek géew bi nit ñi yëpp géew bi dafa tas ñii ne déedéet lii ñango la déedéet nday faatu nii gaaw bi géew bi tas ndeysaan keroog mbalka maak dafa ñëw ba daanu sama kaw téye ma ba fii sama dënn bi hmm. ba gars yi di ko di ko di ko takkale ak man kan mooy mbalka maak mbalka maak mu ngi dëkk marlooj mooy dëkk bi ma doon woy làmb hmm. ñëw langaamu sama kaw dem fekk Ibou seen fi muy tëgg dóor ndënd mi bëtt ndënd mi hmm. làmb ji mel ni lu bëgg a toj ci gëm yàlla la bokk boo gëmul yàlla yenn yi da lay naan dañ ma jàpp ak mystique te gis nga lii doomu aadama la rek ni ngay lekkee di naan di nelaw di reposer wu noonu la lii sa voix noonu la war a def war na nelaw war na récupérer war na mu yenn feebar yi dina la dal nekk ci sa yaram du nekk lu nit def mu jàpp sa baat nga ne diwa ma ko wax milieu bi moo mel noonu milieu bi moo mel noonu mais man moom munu mosumaa dal à part waaw milieu bi moo mel noonu euh, mais gis nañ ne lu euh, man sax loolu sama dama koy dégg ñu ne mbër yi comme ni ñu amee cummukaay ni ñu amee ay butéel avant ñuy wala bu ñuy dem ci làmb yóbbu seeni i butéel. woykat yi tamit noonu la ñu amee seen am ci seen cumukaayu bopp. Mhm. wala ñoo dem ci daw la ñoo dem dana waaw yaa ma gën a xam def seen i affaire. Mhm. loolu loolu loo ciy wax. man sama yaay mooy sama cumukaay. maman <laughs> maman maman dinaa ñëw de. man sama yaay waaw nangu naa foo ñëw rek boo. baatare naa ko sama yaay mooy sama cumukaay. waaw sama papa bi muy dund mooy sama cimukaay mhm. samay mbokk ñooy sama cimukaay mhm. ndax euh, tey jii mhm. mun nga jël fukki junne fey ko sëriñ te li ngeen di def yàlla du boole nga mu antu dëgg la mais munu jox liggéey sama yaay defuma ko dara mu bëgg ma may xaritam ma yëkkati fukki junne jox ko di dem ca làmb ja te ñaanalu ma ñaan bu ma a mun a dal daf may ñaanal waaw daf may ñaanal ñaal bu dal waaw ndax euh, gis nga xam nga nit ñi dañuy boole yàlla ak yaali yàlla dañuy nit ñi dañuy boole loo xam ne bokkul woykat munoo toog ne duma ma sangu. Mm-hmm. ku la ko wax munut am. Mm-hmm. da nga sangu. Mm-hmm. da nga diw. ndax nekkul nag ki war a mun a jóg nee nañ cat sax day sëlmal. yal na yàlla yal ko yàlla defal nangam ñaan bu bari ci kaw nit sax mun na la dal sax. ñaan bu bari ci kaw nit te na nekk ñaan bu baax. mun na dal nit ki ñu naan sëriñ ba walla lii walla laa. du ma ñàkk nag sangu sama yaram ndax am naa ay doom yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey am naa ay soppe yoo xam ne ñu ngi ciy yëngatu am naa ay xarit yoo xam ne ñu ngi ci am naa ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci te ñooñu ñàkk ñu may ma ma sangu danañ ma may ma diw danañ ma may ma naan danañ ma may ma sangu mais xam naa ne Ndeye faatu Adama Diallo taaliba Cheikh la Ndeye Fatou Adama Diallo taaliba Cheikh la euh, sa diggante ak euh, ngeet geet geet gees gees gees gees Njaay mooy mooy saltige bu mag ba nekk ba nekk sima waaw sa diggante ak moom lan la waa xam nga nag man gees sama doom la mhm. wax naa ko ci ay rajo yu bari wax naa ko ci ay télévision yu bari wax naa ko ci télé rajo yoo xam ne dañ may invité mhm. man gees euh, woykat yëpp maa ko ci mujjee xam mhm. mais woykat yëpp itam lim ma ci defal defalu ko yaakaar naa lim ma defal man defalu ko kenn soo ko waxee nag nit ñi dañuy foog ne wàllu am-am la wàll xaalis. li mu may woykat yi ak li mu defal woykat yi ba léegi defalaguma ko waaye defal na ma lu mu defalul woykat. lan la la defal. li ma defal mooy kay yaay ma ne ko ah mu ne ma suma yaay dafa dee. te yow amoo doom yàlla mayu la sa doomu biir waaye tey maa nekk sa doomi biir. ndeysaan loo xalaat boo dundoon ne sa doom dana la ko defal. bu muy dund man bu may dund danaa ko jéem bu ma munul lépp danaa la defal lépp lu ma mun ci sama àddina te la mu waxoon mu ngi ci te la mu waxoon mosu cee jóge mm-hmm. ba barki démb la ko mujjee def ci samay waajur ak sama rakk yi toog nii sama waajur bu jigéen bi jóge fi dem seeti ko mu teraangaal ko teral ko mm-hmm. suturaal ko tatagal ko mm-hmm. loolu rek moo may doy ci gees ba ba bay sàngu suuf kenn du mës dugg sama diggante ak moom ndax sama doom la won ma ne yaay man maay sa doom te loolu mu ngi koy def ci am am mu ngi koy def ci man-manam mu ngi koy def ci conseil am mu ngi koy def ci lu ma koy wax mu dégg gees lu muy def su ma wooyee téléphone ne ma yaa lii lii ak lii lii ma ne ko dee de doo def loolu de bul def loolu de defal lii ak lii ak lii lii laa bëgg nga def uh-huh. dama bëgg nga bàyyi li ngay def di bàyyi li ngay wax dund lii dund lii mu ne ma uh-huh. yaay loolu laay def uh-huh. te loolu ba léegi mu ngi koy def kon kenn defaluma ko ci àddina li ma yemale ci àddina boobu mooy kam ma toog di ba ñu yëkkati doom may ma ne ma jëlal bu dee deyal la bu dundee dundal la gees jàkkaarloog ma ne ma yaay maay sa doom lu la doom war a taxaw danaa la ci taxaw ci sama kër ci sa ci sama bopp ci sama yaram ci sama famille. Mhm. kon daf ma defal lu kenn defalul kenn. Mhm. lu ma kenn defalul. am naa nag lu bari ci samay doom ndax man Sénégal yëpp samay doom la yaa ndey rek ngay dégg ci àddina. wallaay woykat yëpp moom ngay dégg ci man yaa ndey faatu rek ngay dégg. Mhm. kon nag may sant ñëpp di gërëm ñëpp. Ah. ñu gis jamono jamono benn jamono. Eh, gisatuñu la gisatuñu la ci làmb yi. surtout dakaar gisatuñu la ci làmb yi Dakar jamono boobu. Eh, fan nga nekkoon da nga doon defaruwaat wala lan moo la téye woon. man nag Dakar mosul nekk sama jëmukaay. ñi xam làmb dëgg. Mhm. xam Grand Yoff dëgg. Mhm. miin ko dëgg. Mhm. nekkuloon sama jëmukaay. man àll bi rek la ma xaddi doon sànni. làmb ji bu jotoon xaddi day ñëw Grand Yoff bu ñëw rek Fatou Gueye mooy ñëw. mujjantal bi lay yebal aada fay muy ñëw. Euh, di ñëw di côté làmb boobu man ci àll bi laa gën a féete. man ci àll bi laa gënoon a bëgg. même le Grand Yoff day nekk làmb benn fan mais ma dem làmb ñeenti fan moom moo ma gënal ñëwoon làmb Dakar benn fan. parce que xaddi day wax ma ko man Dakar jubuwuma àll bi daal moo nekkoon sa. àll bi moo sama sama fierté. moo nekkoon sama bëgg-bëgg parce que dama jàng làmb ak ñoom. jàngandoo ci def sama vie ci ñoom. ànd ak ñoom di jàng làmb ba nekk di woy làmb ba yàlla mun loo ma tuuti bi ma mun lu tuuti ndax maa ngi jàng ba léegi. mokkalagu ma de. ba léegi yaa ngi jàng maa ngi jàng woy làmb. yaay woy kañ ngay mokkal. laay laa mokkalagu ma. man de soo mokkalee rek wax ma. Khalifa Babacar Sy xam na ne mokkalagum. rawal ba léegi maa ngi jàng parce que xam nga. mokkal kon daal yow li ngay jox fan si ba léegi yaakaar nga ne des na. wallaay bu nekkee vingt la. Mhm. cinq yi rek a ñëw. Mhm. des na quinze yi ci kanam parce que xam nga lu tax. dama am ay doom yoo xam ne dañ ma yéene li may def ñu yéene ma ko ma di ko def mhm. te ñu di ko def ci fierté bëgg ko mhm. xam li ma bëgg xam ne yaa ndey mi woy cosaan lay woy mhm. woy yoo xam ne day yëkkati mag yëkkati ndaw yëngal géew bi man bu may woy làmb balaa may gën a kontaan ci làmb bi sax mu bara bari ay mbër parce que bu bëree mbër li ma bëgg euh, li ma bëgg mun na ñàkk am mais bu bëriwul mbon lool ma bëgg woykati amateur yi kontaan danaa def loo xam ne amateur yëpp danañ kontaan ñu di ma ci jox nag ñu xam ne yaa ndey mi cosaan lay woy ku ma ci jox woyu cosaan nga may jox. woy boo xam ne mag dana ko bëgg xale dina ko bëgg. ci noonu ñu gis la ñaaxar benn jour. ñu gis la ñaaxar benn jour ngay woy di woy di woy di woy su ma juumut Yékini moo tegoon làmb jooju. waaw euh, tegoon fa 3 millions. Euh, ngay way di way di way di way ba magi saltige yi jóg. <laughs> jóg. di la di la may xaalis mm-hmm. yëkkati seen bant yi di la ko joxoñ yëkk yëkk ne yëkk yëkkati xaalis di leen ko jox ñu la koy jox jour boobu lan la def ci yow parce que dama leen laal rek parce que dama bi yëkk ne di dellu si di ma sànni cent mille sama kaw mm-hmm. boobu daf ma ne ma woy yi ngay woy fi toog naa dix ans dégguma ko mm-hmm. loolu la ma dee ci sama nopp nday faatu ma ne ko amu ah, na ma woy yi ngay woy ma ne ko amu ah, ma géj naa koo dégg def na dix ans dégguma ko kon yëkkati talon talon bi la yëkkati rek sànni ma ko ma dugal ko ci biir poset bi ma ko paree ma compté cent mille la jógewaat ci kaw tribune bi encore fekk si ma ma daa di jël Khady Diouf rek teg. bu làmb ji bu làmb ji tàngoon ba làmb ji tàng ba métti ba métti. ba mu xam fi làmb ji toll ba mu yuuxu ba mu yaakaar ne fi mu ne nii dafa toog biir yerwaago parce que bu làmb ji métti woon ba làmb ji métti rek nga dégg mu oo rabu dëkkam mooy yerwaago loolu moo tax ñu di ko wax yerwaago rabu dëkk ba moo tudd yerwaago ah, bu dee ci olof mhm. dañ koy wax ne eh, xanaa yow naan rek nga mën te loolu lañ ko waxoon bañ ko fa fekkee mu toog moromi rabam moo ko fekk mu toog fekk ko nag mu teg ay bagaasam mm-hmm. nan la doon woowi rab bi waaw mooy yeer waagu rek mm-hmm. mooy yeer waagu rab boobu ak xamuñ turam boobu woo ci way wala waaw da ko da doon way woo ko surtout nag ci way mu ñëw na ko ndax yow yer waago yow yer naan rek nga man waaw wooyal ñu ni mu ko doon woowe ndax yow naan rek nga mun mun na ko waa kon dëkk bi tey dinaa ko tuddee yer waago ah, looloo tax ñu tuddee dëkk bi ñu tëgg yer dëkk tuddee dëkk ba yer waago mm-hmm. mais bu làmb yer waago taroon ba tar seetaankat yu bëri wala mbër yu bari danañ daw ndax bu làmb ji taroon bu làmb ji taxaw bu làmb ji taxaw bu xaddi ju fi yer waagoye jabar wan nge xaja daana yer nga gis yer waago di génn si génn ba muy génn day dàqi ñëpp ramu dëkk bi génn day génn def ay jaan dëkk bi yëpp nekk ay jaan làmb jeeg géew beeg tëgg kat yi nga gis ñii daw yéeg ci kaw sa eh, tribune bi. mais yaa xadi moom digganteem ak. yaa xadi mel ni mu def toog rek mel ni gaynde ju fa ñu xubaay. yër waago yi di la jaan yi dañuy ñëw di wër ci tànk yi am na yoon boo xam ne poset bala ma jox ne ma téyel ko poset balaa jël ko yëg ci toog maa ngi toog ci wetam mu jox ma poset di def bi jaan yi ko wër jaan yi di ŋànk tànk yi di mar tànk yi mu taxaw rek mel ni gaynde bët yi xonko cur tëggkat yi daw woykat yi daw géew bi jaxasoo pare yi kenn du xam li géew bi di nirool jaar ngay fu mu génne kenn. waaw su ko defee nag nga gis nag mu wàcce woy bi nag. Modou Fall wapidu zalo la seeni Modou Fall wapidu zalo la seeni nga gis affaire bi di dal. di dal gars yi di dem. mais jaan boo ci gis nga bëgg koo jël takk ko sa baat ndax lépp day niroog or. rafet macha allah mais duñ màtt kenn. ñu def dara mais dina génn ba nit ñi xam ne jaabar wan gi moom fii ci Yerwaago tey jaabar wan gi yëngu na. Euh, jërëjëf yaay booy yaakaar naa am na solo loolu loolu neex na trop euh, léegi nag dama bëggoon ñu ñëw sa diggante ak euh, Mbayang Loum waaw ñu bëri dañu naan yaa yaa yaa ndey faatu ak Mbayang mhm. seen diggante neexut loo mhm. loo ciy wax waaw waxi supporter rek waxi supporter rek waaye Mbayang sama digganteeg moom dara dugg ci parce que man Mbayang sama doom la Mbayang bokk naa ci barki dem rek laa koy wax ci benn télévision bu ma invité mbayang bokk naa ci njikko njëkk wax ne woyal ndax boobu xadi damay woy làmb kawlax xadi euh, boole ma ak moom mu ñëw ci làmb jooju kawlax mu téye micro bi di woy ma ne ko en tout cas day su dee woy rek nga def ci sa xol soobee yàlla yonent bi da nga woy bokk naa ci nji wax ne woyal yor nga dënn woykat car macha allah doomi jàmbur yor nga dënn woykat yor nga filingu woykat te yor nga Euh, li ñuy ut ci woykati làmb yor nga ko. man bokk naa ci ñi ko ñu ko wax mbayang mais nag olof Ndiaye dafay wax naan lu sotti rek am borom. mais xam naa ne bu soob li yàlla di def. su dee mbayan am na staf. waroon naa bokk ci ñi nekk ci stafam. yow man waroon naa ci bokk. Uh-huh. ndax car macha allah li muy wax ak li muy def mën na ko. dérangé wu ci benn côté parce que xam naa lu muy wax loolu laay wax. li may wax loolu lay wax. te xanaa li may wax du ko dérangé. mais nit supporter ak supporter fii lañ ko fekk. te fii lañ koy ba. diwa mun diw diw mu kii moo mun kii kii moo mun fii lañ ko fekk te fii lañ koy baax. waxu fans la waxu fans la waxu supporter. waxu kii mais euh, xale bu ci foog ne maa man. wala yàlla lii yàlla man rek la ko may. Mhm. muy mag muy xale dangay nax sa bopp. xool nga ba woy amee ba léegi ba woy làmb amee ba léegi te jeexagut ba folklore ñu koy woy ba léegi te jeexagut ca suñu maam ya ba ñuy xalam di woy ba léegi te woy jeexagun kon kenn mënu ko jeexal kenn mënu koo jeexal kenn du ko jeexal woy du jeex mukk woy du jeex man mbayang sama doom la mhm. ñoo bokk aar bi mhm. yaayam laa yaa moom ko jiitu ci yaaxat yi Mbayang fa la ma fekk ci Khady Diouf la ma fekk man en 81 laa dem ci Khady Diouf. Ah, le 15 août Khady le 15 août di sama jour yi anniversaire. Ah. man ci laa dem ci Khady Diouf. Ah. def naa fa la def naa fa plus de 30 ans. dund naa ko ak Khady Diouf. may am âge de 13 laa nekk ci Khady Diouf boobu Khady Diouf di gaañu. maa ngi ci sama cinquante naa nga xool fi Khady gaañu ak léegi. waaw yàgg na. Mbayang man Khady bi may ànd ak moom boobu waa dëkkam la doon àndal. muy waa Yerwaago. Fatou Gueye ñëw rax ci ma ñëw topp ci kaw faatu Gueye. ku ñëw ci groupe Khady Diouf rek da maa fekk. ku ñëw ci groupe Khady rek da maa fekk. mais comme da nga cee seppi mbayang uh-huh. ma bugg laa wax ne mbayang sama doom la sama xarit la uh-huh. ñoo bokk liggéey bi. Uh-huh. yaayam laay doon. tewa bi jur mbayang mënu ma jur mais man mun naa jur mbayang ñaari yoon. mais tewa bi jur mbayang mënu jur. mais man mun naa jur mbayang Mhm. kon mag yaayam laa ci aar bi. Mhm. yaayam laa ci âge. Mhm. yaayam laa mu fekk ma ci groupe Khady Diouf. yaayam laa ci tout le côté. da ngeen di déggante téléphone bi waxtaan. waaw dana may woo. man it danaa koy oo. mais nag du toujours. parce que jamono ji neexul. xëy na li mbayang di foog ci man mun naa koo foog ci mu wala mu foog ko ci man. affaire bi taxawul benn place. ci côté ak kaas bu ne la. mais man xam naa ne man day faatu Adama Jali. lu ma yéene nit yal naa ci jiitu. muy képp kuy woykat saa yu ma jullee ba pare. damay ñaan képp kuy téye micro nii. Mhm. di woy làmb. Mhm. yàlla la yàlla defal jàmm. Mhm. ndax ñun ñuy woy yëpp nag ci weenu Xadi Juuf ba lañ namp. te kenn du fi woy saraxule kenn du fi woy bambara. yaa maye de mi nga xam ne bokkuloon ak Xadi Juuf sax yoon. Xadi Juuf daf ko jëloon def ko nii. may jël ko def ko nii te pourtant nag ñi ñaa ñi ñuy wax sama diggante ak mbayam. ñun ko doon wax diggante Xadi Juuf ak may dem. waaw dañ ko doon wax diggante Xadi Juuf ak may dem. diggante ko di ko wax diggante Youssou Ndour ak Thione Seck. yal na ko yàlla yërëm. di ko doon wax diggante Waly ak ak euh, Pape Diouf. Mm-hmm. digga di ko wax ci diggante xale bi dëkk pikin mm-hmm. ak di ko wax ak beneen woykat. Mm-hmm. kon mbër yi bëre sax nga xam ne dañ leen di fay ay million sax nit ñi dañ ciy teg di werante. diwa mun diwa mun kon loolu munuñ ko bañ. ñun ñi nekk ay mag surtout man. man mi nekk mag tey. maay defar loolu. li tax man maa koy defar. mbayang suma doom la. xam naa ci tout le côté fu ti nekk. Mhm. man du ma jóg fekki ko moom mooy jóg fekk si ma. Mhm. fu ngeen fu ngeen daje mooy jóg fekk si la. moom mooy war a fekk si même bu ko defee moo ko war bu ko deful moo ko war ndax man yaayam laa. muy sama doom te doomoo naa ko. ndax li tax ma doomoo ko man ku xeetoog li bokk ci Khady Diouf bokk rek dama lay doomoo dama lay rakkoo. da koy bëgg ndax li ma def te nu ma mel tey yàlla Khady Diouf ñu ñu ñu ñu dégg. ñu dégg bi yaa Khady bi yaa génnee àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. te xaare ko àjjana bi yaa Khady génnee àdduna. Euh, dajale nañu woykat yi doon ànd ak moom yëpp ne leen yéen ñii topp leen ci ginnaaw ndey faatu. Oh, mu mel ni loolu nag defuñu ko. waaw loolu nag euh, duma ci mere kenn loolu bañ koy def maa Maadou ngaan mhm. maa ngi koy nuyu au passage di ko gërëm di ko sant. Mhm. ba Khady Diouf amee ñetti fan ñeenteelu fan bala dajale woykat yëpp ku ne mu jël sa jël sa tur. Mhm. jël sa numéro. oola waxtaan le boo la ñu waxtaan. ku ne wax li nga xam ne looloo ko métti. ci bi ñuy ànd. mais mooy bi ma la mooy suñ commencement wax rek dama la ne. fii ñu nekk fii ñu toll nii. kenn xaajul boppam. maay mag boole nañ ma koog man di nuyu baabu Ngom au passage ba faatu gay jiitoo ndeysaan moo ma oo mm-hmm. ne ma fi mu ne nii yaa fi sës mm-hmm. te yaa fi sës ay taxafalu mm-hmm. ma ne ko ku bootu sama gannaaw gi rek xam naa ne boo yorul dëgg ci sa dënn doo fi fekk dëgg ci sama gannaaw dinaa la yor parce que ki ma yar jàngal ma aar dugal ma ci def ci sama xol bi lépp yor naa jikkoom am na lu ma roy ci jikkoom am na lu ma téye ci jikkoom am na lu ma ŋànk ci jikkoom ba téye ko ci sama loxo mm-hmm. kon ku ñëw bootu sama gannaaw rek dinaa la boot mm-hmm. mais ku bootul sama gannaaw duma la mere mm-hmm. parce que xadee ko samp balaa muy dem xadi moo def groupe am di engagé fukki làmb boobu car macha allah am na bayre am na tur yàlla may na ko talent may na ko bayre ci woy yàlla may na ko dënn boo xam ne bu woyoon rek nga xam ne xadi di engagé fukki làmb kii mu ne la demal fii kii demal fii demal fii waaw ndey faatu demal fii mhm. la gënal demal fii mhm. mbayang kaay ak diw ak diw demal fii mhm. aada fay àndal ak kii demal fii xaddi ngoom demal nga ànd ak kii demal nga awul faya ndey faatu demal ñilaan awul la aada fay demal xadi kii awul la mu jël faatu gi ànd ak moom waaw bu xadi di def loolu muy dund ba bu ma amee làmb mbayang am làmb Fatou Gueye am làmb Faye am làmb Khady Diouf keneen am làmb yëpp ñu indi ci Khady jox Khady mm-hmm. Khady xaaj ñu ku ne mu ànd boo lay yedd ngay dem xam nga lu muy wax mm-hmm. ku ne na ànd ak ki nga déggool mm-hmm. bugguma xeex bugguma xuloo mooy yeddam ak ñun waaw bu Khady demee bu ko yàlla jëlee ndey faatu moo fi jiitu nekk kilifa lu ngeen di def bu ngeen ma waxee ma jiitu ca su ngeen ma waxul it ma xam ne waxul leen ma ma def yëfi mag toog jàpp sama njàmbur waaye lii am moo ko sos du xaajaloo de xaajaloo wuñu li am ca jamono yaa waaw xadi comme moo ko doon def bi muy dund ba ku ne miin na jiite. Mm. ku ne xam na yoon ku ne xam na fi nga war a dem ku ne mm. xam na fi nga war a def. Mm. léegi loolu dañ ko dañ ko dund xadi de rek ñu continuer di ko def. mais du tee bu ñu dajee yal na yéex yal na bu muy am yal na ñuy daje ci ay xew bu ñu dajee xew dañuy kaforee. ñu daje ci dëj dañuy ka foree mbayang ba sama papa dafa ma ne ma maa ngi nii Dakar laay doog a yegg si fekk jour boobu dafa war a woy si Dakar mm-hmm. mu oo ma téléphone ne ma yaa man dama bëggoon a ñëw mais damaa egg si nii dakaar mm-hmm. te xam nga suma jóg sama mm-hmm. jóg neexut sama jóg neexut ma ne ko waa baax na amul benn problème mu ne ma maa ngi nii dakaar nag waaye maa ngi nii di tënju Mm. ma ne ko bu ma jógee Dakar dinaa la indi li ngay tenjoo mm. loolu ci kaf la bokk ci la bokk kon daal ci dund la bokk ñi ñi ñoo xamul rek mais ñun ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam ñi xamul ñooy demale di ñu ko ni ko féewale nag ndax man du ma nangu mbayang jiitu ma mbayang du nangu ma jiitu ma faya du bugg ko ku ne mm. dangaa nekk sa kuyu mm-hmm. yore say say say say say état major yore say xale yore sa groupe mm-hmm. ànd ak ñoom mm-hmm. euh, ku ne di jiite ña nga daan jiite nga continuer di leen di jiitu ba ñeneen jóge fa ñëw fekk ñeneen jóge fa ñëw di ànd si ñi bëgg làmb ñëw si ñëw bëgg làmb ñëw dugg man danaay tollu maman boo xam ne billaay wallaay talaay sama yaay bu bañu sax ma jox ko micro mu woy Khady Diouf mos na jaaxle fii làmb ba oo ma ne ma ndey sa yaay mënul dara dara dara ci woy <laughs> ndax programme yu bari programme yu bari mm-hmm. sama rakk yi damay damay xat ba yenn saa yi dama leen di jël pour ñu soutenir ma toog sama wet mbete munuñ mais ma jël leen couvrir leen sama wet pour ñu nëbb nit ñi ne ñaari nit laa wala ñett laa làmb dana bari te làmb danay bari bari ne mbayang day àbb ay nit ak lu mu munti bari ay état major mm-hmm. yow yow ba léegi da ngay da ngay engagé ñaari programme wala ñetti programme damay engagé dix lamb semaine bi bi ñu laata dugg ci koor gi fukki lamb laa am yu daje ci benn bis wala semaine bi ah ci biir bi ci biir semaine bi parce que ñun à part Dakar ak arrondissement Fimela ñooy tëgg ñaari fan ñetti fan rek mm-hmm. waaye biir ndox mi yëpp amu ci benn buy tëgg ñaari fan mm-hmm. une semaine quatre jour cinq jours ci biir ndox mi léegi nag danga mun a rafetal ñam fii dem ñam fa lay jóge fee ñam fee ndax su ma la waxee ne man jóge naa dakaar yendu di fi woy ba làmb ji tas ma continuer dem Gandiaye woy Gandiaye ba ñu nekk ci presque quart de ma duggee fa oto dem eggali ji njaafat ci benn bés hmm? damay woy Dakar Dakar bu ñu nekkee ci final wala làmb ji tas ma dem eggali ji benn làmb loolu yëpp pour mun a euh, soutenir ñi nga xam ne mun a bégal samay fans mun a bégal ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi may supporter. mën a bégal say fans ni ngay bégalee say fans tamit yaakaar naa yaay booy. noonu ngay bégalee mbër yi nga xamante ne bii dañuy dañuy dañuy dañuy nekk ci biir làmb ji. Euh, ndax fi mi ngi ma koy wax sànq mi ngi ma naan sa diggante ak mbër yi. Euh, yenn saa yi nga woy mbër jóg gis boppam jaaju. bëggoon naa nga ñëwal ñu ci loolu ba pare ñëwal ñu sa diggante ak Eumeu seen tamit. waaw tubaare fakal la macha allah waaw nga tudd nag mbër boo xam ne suñu ma xarit la. Ah. sama doom la muy Eumeu Sène bañ na ko ba sama sama rakk bi nga xam ne bokk nañu liggéey bi bokk ci li ñu liggéey muy Mor Ngom moo muy géwélam moo koy tëggal. Mm-hmm. man ama bu ko sañoon combat bu mu am man danaa ñëw ca combat ba wuy combat ba mm-hmm. yàlla mooy def loolu ay nit comme li la euh, na fi euh, proposé léegi pour nga laaj ma ko dëgg la. Mm-hmm. ñun loolu ci loolu rek la yëngu xanaa xam ne booy woy ci géew te mbër ya xaalul woy ba neexut. booy woy te mbër yi xataraayu wuñ. xataraayu mm. wuñ. waaw mbër yi di xataraayu fii nit ñi di jàpp pour bu géew bi tas comme lamb ndangaan bi barki dem bu seen làmb bi. am na ku ñëw ci man ne ma lamb ji dina toj de. te bu tojee yaa ko toj ma ne <laughs> a toj. yéena ma sama yoon nekku ci yéena ma ne naa woy. Mhm. muy Pape Ndiaye ndangaan nga xam ne mooy ànd ak Yékini. Pape ndangaan sànq dama décroché ak moom rek ngeen ñëw. Mhm. Euh, mbër dëgg da ngay woy waxuma la woy woy falaa falaa mhm. dëgg da ngay woy lamb. ngay woy lamb. paa toog ca kaw ca kër ga sax. di santir boppam ci làmb ci loolu mooy woykat dérosine ki nekk ca kër ga mooy dégg li ngay wax mais ñi nekk ci kër ga sa dëkk ci làmb ji sa mun na ñaaw ñàkk a dégg li ngay wax ndax woy nag ñeent da cee ne da woyal xale yi woyal njege maar yi woyal ñi ci topp woy nag ñi nga xam ne ñooy original ñooy paa yi nga xam ne bëre original lañ doon def di bëre ay sagar mm-hmm. di bëre ay saaku ceeb te saaku ceeb sax yàggul defe naa bëre nañ ay sagar mm-hmm. ëpp na juróom fukki at mm-hmm. mbër bi daan yow nañ la jox drapeau bi rek nga gàddu ñëw ca dëkk ba dëkk ba teeru la ka am nag ka ca am alal ca ca ca famille ba reyal la nag jigéen ña daje fa ñu di la noosal di wa daan diw di wa daan diw loolu la mbër yu mag yi cosaan yi doon defoon tiitar Mm-hmm. membre yi léegi yal ma yàlla baal million yi dafa bari ba boo mu nekk boo mënul sax da nga jóg dem mm-hmm. uti doole rek pour rek waaw boo amee doole rek dem bëre ji mais li ci ëpp yow booy woykat bi woy ci mag ba nekk ca kër ga day xaalal boppam mm-hmm. xam ne kii mu ngi woy ndax man toog naa ci géew nag di woy ba nu fekk ma fi yëkkati caa buum jox ma ko 10 000 ne ma booy ñibbi suba nga jënd buum suba ma may la nag waaw nekk ci géew di woy ban jox la buum ne la ba ñu ñëw jox ma 10 000 ne ma boo demee nga xëy ba nga jënd ko buum ma jox la nag baa nga ca gétt ba boo ñëwee ma may la ko te dal na woykat yu bëri mm-hmm. am na woykat yu bëri yoo xam ne nit woy na ba ñu ñëw may ko ñëw may ko ndax lamb ndangaan bi keroog bi may woy ba lamb ji jax bi may woy wa ma frel njom no si dexandu sare mm-hmm. korno mbaaji leeno mm-hmm. wa ma frel njom no si dexandu sare korno mbaaji leeno boobu géew bi amatul jaay jàppal ma sama doom. nga gis ma jóg téye micro bi wëndeel ko ci kaw. Mhm. dóor won xale yi ne lii dafa war a mun a nekk sama cosaan la. Mhm. man damay am foo xam ne bu ma tollee ci géew bi damay mel ni ku xabtalu lii dal mbër yi daf may dal. Mhm. damay xaal. damay gis aalu damay aalu. sama xol bi lu ma woy dama koy xeeb. lu ma def dama koy xeeb damay mel ni xale bu am 15 ans ci géew bi. ndax kontaan ndax li may wax xam naa ne. ñi koy déglu ñu ngi dégg li may wax. ñi ma koy waxal ñu ngi koy dégg. comme woy bi may woy You doing? Uzide mak noro na nyama. Areza gaika la min koli chamza vando nero didae. Desan. Uzide mak noro na nyama. Areza gaika la min koli chamza vando nero didae. loolu dafay bokk ci li nga xam ne mais tamit am na sa benn woy ba nga xam ne. Mhm. heure boo ko woyee amateurs yi kenn dootu leen mën a téye. dëgg la. Euh, mbër yi kenn dootu leen mën a téye. Mm-hmm. Euh, te woy boobu mu ngi def buzz fi mu toll nii. Mm-hmm. muy amateur ke xooyaa. amateur ke ngooyaa. waa muy. gefa wegaam jomna dako wegile gidma roog fi supporter ka o ndebna refa maake e layo e lolog de ndama gimbire fado sumbe go lase ku ñufke e binno ginneero xañeelo teno mbaasiyo wiin waade ñoowi citnerooge e ngorge ngeenoyo ngima kelwaare layo gees njaay jabaar neero didaye <laughs> mais yaay booy xam nga ne man dama laa bëgg. waa loolu am na gis naa loolu dama laa fan laal yoon ba nekk Mbour Géej. wallaay ndeysaan sama doom jooju. noonu laa la bëggee ak mu maa bëgg. man su ma la gisee ngay woy ci làmb man xam nga xam nga xam nga lu ma gën a neex ci nit. mooy nit ku ah. nekk li ngay def nga yëg ko di ko sentir. waa yow li ngay def da nga koy sentir. waaw ku jàkkaarloog yow li ngay li ngay def faaw faaw mu bëgg la. xam nga moo nekk li ma la wax xam nga dañuy wax fii ne eh, dafa am xam nga mooy li ma la wax sànq rek mm-hmm. waxkat yi moom kenn mënu leen a teree wax mm-hmm. mais jëfkat yi dañuy bëgg di jëf mm-hmm. toog naa fi ba nit oo ma téléphone ne ma waaw gaa yaa ngi wax ne yow yaa def bës daaw jéeg yaa def bës daaw ren moom doo def doo toj làmb yi ren munoo toj daaw toj ren taaw daaw jéeg toj ren bugg a tojaat ren loolu moom munut nekk mhm. lii ma lay wax daal boo yeboo daal nga ko ma ne ko mhm. barke Xalifa Babacar Si leen laay gën a toj géew yi ren ngay gën a toj ma ne ko ren laay gën a toj làmb yi ren laay gën a yëngal gaa yi mag ñeeg ndaw ñeeg njegemaar yi yëpp ku ci mbër ku ne na préparé ren ma toj làmb yi kon daal ren da ngay andi lu bees <laughs> yàlla dogal ma dem Fatick ci sama doom jooju doon def euh, doon def soirée sénégalaise. Oh. ma ne leen bu leen foog ne mbir mi sëriñ la. Oh. bu leen foog ne leneen la. mais oh. yàlla la ak loo xam ne dama ko sabablu ak lu ma bëgg. loo xam ne dama ko parce que dara boo koy def te bëggoo ko doy des ci yow. man li may def dama ko bëgg. Mhm. dama ko bëgg ba mu yàqal ma sama lépp. Mhm. njàng. Mhm. liggéey buñ ma doon jàngal. leneen sama maam yar ma nag jàngal ma lu ne sonn ci man. waaye ma ñëw nag làmb mu di ma ko tere ba ma ñëw ci dama ciy def li ma bëgg. waaw bi ma demee ci làmb ji ba taxaw rek damaa daal di yuuxu. episadio yu fa baatane lo laage. kor xadi kor ngo fe mbap ne doya me dëkki ñaan laay. xam nga fas lu mu daw daw rek da nga gis nga yokk ko yar. waaw. naan ko Ali moo mm. yiw li ma wuy mm-hmm. fas lu mu daw daw rek nga yokk ko yaa wallaahi mm-hmm. wallaahi li naan waaw góor bayul ab tool wante wante yokk na góor mi ngi noonu yaay booy eh, waxtu bi jeex na te li ñu waroon a waxtaane yëpp wax dëgg yàlla eh, matul sax xam naa dañ koy dañ koy dañ koy dagg fii rek ba beneen yoon mais dang il faut nga wax ma eh, ban jour nga dugg ci làmb way ba yëg ne tey jii li nga way masoo koo woy bala ñoo tàggatoo Euh, man na xale yi dañuy wax naan yaa ndey chaque jour rek yow yaa ngi nekk ci activité. Uh-huh. yow chaque jour rek nga nekk ci ki géew. Uh-huh. mais woy ba jàpp sama xel sama xol bii ne woy naa tey. Uh-huh. mooy làmb boobu ngay wax rek làmb Yékini bi. làmb Yékini bi fi saltige yëpp jóge waaw te làmb boobu nag dafa nekkoon làmb xeex de ndax ñu bari ñëw na woon du ma dem. waa ndax dafa fekk ma am huit làmb. ñu ne Yékini Ndeye faatu du dem ci làmb ji. Mhm. du ñëw. Mhm. ndey Fatou du ñëw gis nga bi may ñëw sax de ma gedd xale yi ci micro bi. Mhm. dox ak sama tànk rek dox dem. ndax ñu bari dañ ñëwoon Ndeye faatu du ñëw. Ndeye faatu day wax na nangam làmb ju ne. ma ne ko bañ a ñëw. maa ngi nii ñaaxar Yékini maa ko jiitu ñaaxar. yaa ko avant Yékini di ñëw ñaaxar man ñëw naa ñaaxar. bi ma ñëwee di woy ba làmb ji tax rek ma daa di jóg. bi ma jógee noonu rek daal di yëkkati eh, daal di yëkkati micro bi sama rakk ji moo doon filmer keroog. Mhm. sama rakk ji toog. moo yoreen ab portable bi di filmer. Mhm. ma daal di jóg rek tey micro bi. Mhm. mbete euh, lamb bi géew bi rëy na. Euh, géew bi na. géew bi yaatu na. mbër yi bëri na mais il faut que Ndeye def démonstration boo xam ne lii moom la ma nit ñi di gisee. moom la ma nit ñi xamee. il faut ma jóg def ko. ma daal di jóg. téye micro bi rek daal di wëndeelu taxaw tey micro bi ñëpp gis na vidéo bi. daal di yuuxu wëy parce que nag Yékini Euh, lu bari def ñoo boole xejul ci émission bi xëy na bu ma amaatee beneen émission dinañ ci dem incha allah mais Yékini lu bari dañ ñoo boole ba nga xam ne ah sama dama koy ñaanal rek li muy tëgg làmb tubaar fakkal la lamb yi nar nañu bëri ren mais maa ngi koy ñaanal yàlla na yokku ak promoteur buy tëgg lamb mm. ku ne maa lay ñaanal lamb yàlla rek mm. soo tëggee rek li nga tëgg yàlla na nga ci gis sa bopp li tax ngay sonn ndax lamb yi bëri mm. ñun jàngatuñ école demuñ ci bureau demuñ fenn lamb yi mooy suñu bëgg-bëgg loolu la ñuy def mais di way tëggkat yi di xaal comme question kii bi loolu ci la dëkk mooy li ma la njëkk a wax rek mooy bi may way rek ba mbalka xaal sama kaw am na boo xam ne mbalka daa bi di yëkkati di dóor ci suuf di yëkkati di dóor jàpp di indi. ci la ñu dëkk. ama seen su ma doon woñuy woy di ba ci yaa nga dégg mu ooma waaye yaa am na benn woy bu ma dégg nga ne. njom ne doole xooytaay rente ma fañige mm. njom ne doole xooytaay mm. rente ma fañige ade boya gulnaamey mm. lam le jinte loola eh. perkende rangel naayey aada ah, booy ak loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne dafa bokk ci li ama seen bëgg. Mm-hmm. ba nga xam ne bu ko sañoo làmb bu muy wëy. làmb bu muy bëre rek man danaa ñëw mais comme làmb yi muy bëre day tomb man itam may am yeneen programme. waaw di wëy ci ci raison yi. Mm-hmm. parce que itam golo du liggéey baabum dunde mm-hmm. ñun lu ñu mel raison bi moo ñu ko melal. waaw bi. àll bi moo ñu melal ni ñu melal kon bu ñu gis ndakaaru tey jënd ko dëkk bi ndax fenn sax nekkatul àll. lu am ndakaar léegi foo dem ci dëkk bi boo demee teranga boobu nga fay fekk kon bu ñu gis loolu rek bu ga bàyyi gis ndakaaru rek bu kooki ndakaaru nag dañ koy booleeg suñuy programme pour pour gars yi comprendre yaay booy sa digganteeg Leewtoo production gis nan ba ñu tëggee Joal yaa ko toj waaw ñu tëgg ndàngaan nga rajaxe ko wallaahi ñuy waaj a tëggaat loolu seeseen nan nan nan nga fas yéene def ci bu ma demee fim la xam ma bu ma demee lul seeseen mhm. ndax lul seeseen nag dama ko yàgg a rajaxe mhm. waaw ndax dama fay fekk sama xarit sama doom mhm. di fa fekk paate ñaax moo doon tëgg sa jour tabaski jour korité ak laa lendemain korité ren ngeen war koo dem tëgg Leewtoo TV war koo tëj ma war koo toj nag ci su ma jógee bu ma jotee lul seeseen <laughs> kuy amateur ah. kuy seetaankatu làmb léegi xo amateur yaa ngi nii jàkkaarloog yow kuy mbër kuy kuy déglu làmb di déglu cosaan. Uh-huh. kuy takk ngemb kuy amateur ni góor di jigéen di mag di ndaw. Uh-huh. <laughs> man de Fatou Adama Jali maa ngi lay jox rendez-vous à Loul Sessène kañ. buñ jour yi korité uh-huh. ak korité lendemain buñ lekkee ganaar yi daal ndax man nag jox ngeen ma dépense bu jot lu ma rey ganaar <laughs> su ma yootoo sama béy ba ba ne ko fàq déggal ba daal di lekk ci ba suur ba jot lu ba jot Loul Sessène mm. yéen amateurs yi maa ngi leen di jox rendez-vous. Mhm. taalibe cheikh bi mooy ñëw foofu rek rajaxe ko mokkal ko ba mu mokk rumbax rumbax rumbax rumbax di leen di sant di leen di gërëm kontaan ci amateurs yi. <laughs> macha allah kaddu gu mujj gi lan la. <laughs> waa kaddu gu mujj gi de mooy di ñaanal sama yaay rek yàlla yóbbu ko Makka. di ñaanal sama papa bi jiitu yal na ko yàlla defal jàmm. Mhm. Euh, di ñaanal sama waa groupe. Mhm. ndax tey lu ma mun ñoom la. benn lam benn lam du yëngatu. te dañuy indi sama xar seen xalaat ci man. di indi seen cofeel ci man. di ko ànd ak man. di dund ak man di di rêvé li may rêvé. làmb day dañuy dem làmb làmb ja du am dërëm ñu ñibbi ak seen xottu loxo. làmb bari xaalis ñu bokk kook ñoom kon yal na làmb yi di bari xaalis làmb yi di bari ñuy wëy di wëy ay làmb di wëy ay làmb bokku ne ci parce que man loolu laa bëgg man maay bàyyi làmb mais làmb du bàyyi ndey faatu mm-hmm. mais Leewtoo TV mm. <laughs> am am ngeen soxla de Leewtoo TV eh. ma eh. eh. i moof na boongi ma gel waar TV ma i moof na boongi ma gel waar we mbada njaayo e cey bu korita lépp <laughs> dina baax incha allah. mi ngi noonu mi moo nekkoon waxtaan bi nga xamante ne bii moom lañ doon amal ak suñu yaay Ndeye Fatou Adama Jali la fille de suñu maam aadama euh, Dialli nekkoon communicateur ba nga xamante ne bi macha allah ñëpp ko ràññee woon euh, di leen dig daje incha bu ci yàlla àndee beneen yoon ak beneen invité di jaajëfal sama équipe bi ma àndaloon bilaal sama caméraman bi merci beaucoup euh, Yacine Fall mi nga xamante ne bii moom moo yoroon euh, appareil photo bi di fi satu moom tamit waaw moom suñu assistance bi nga xamante ne bii suñu assistante bi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla moom tamit jàpp na ci liggéey bi ba mu rafet merci beaucoup Abdou Wahab doomu ndeyu Duudu kontaan nañ ci yéen dig daje incha allah beneen yoon beneen invité incha allah